tàggu mbaar day tàggu mbaar waaj a sifle waat diggante Clédor ak Cek laaj na ay sixième sifle na combat bi diggante Clédor ak Cek Cek sànni na gauche droite ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Cek ak Clédor Clédor sànni na sànni na benn kurbañ eh Clédor jël na ko Clédor jël na ko jël na ñoom ñaar jàppante ñoom ñaar jàppante nañ dafa ndoro ceek moo ëpp avantage si jàpp bi ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ diggante ceek ak Clédor diggante ak Clédor ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ diggante ceek ak Clédor ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ jàpp kaw Clédor sol na ko ah Clédor daan na ko jël ba amul benn werante daf ko dëbba sol doole doxul dàmm daan na ko jël ba amul benn werante waaw c'est le maire c'est le maire Clédor daan na ko jël ba amul benn werante waaw waaw xoolal ay supporter am ndeysaan supporter nii tey seen mbër ñoo daan loolu ni wax ñoom ñu ngi naan kees nañu dëkk. Ah, waaw. supporter Clédor yaa ngi nii nee na ñoom kees nañu dëkk. ñu ngi nii day sànn waa ay grand champion waa tey ngeen indi Coulibay 2 loo leen wax. noon ndigal lañ andi. ah ndigal ngeen indi. ndigal lañ indi. ah ndigal ngeen war a daan kaw Gourdin incha allah. ñu ñibbi géej waaye école de lutte Balla Gaye waaw waaw. yéen loolu ngeen koy yabee. non dañoo andi suñu suñu lamb lañu andi tayit lamb dafa ñibbi si tey ci suñuy loxo ci kattanu yàlla suñu borom waaw. ngeen di bëreel dafa nekk si yoon. waaw dafa nekk ci yoon ñun ñun ñun tëdduñu suñu kaw lal dañoo daje ci yoon ngay wax xanaa naa ngay bëreel da ngeen a daje ci yoon. ah da ngeen daje ci yoon. ci yoon waaye na fexe ba. li mu yor bu mu ko rëcc. bëgg a am roi des arènes ci Kees am mbër yoo waaw. waaw. waaw. dara. man miin naa laamu. comme d'habitude rek. si laam mais def naa samay preuve def naa samay preuve bu baax a baax a baax a baax ba tey Kees gépp topp suñu ginnaaw waaw kon dañuy sant ñëpp. di sant tamit leader kees yëpp. waaw waaw. quatre ans moo ngi daw sama avance. si xale màgg. quatre ans moo ngi daw sama avance. man boo xoolee du dër bi combat bi kees la waroon a am parce kees mbër mu fay ñëw të daan naa la mbër mu fay ñëw të daan naa la kees waaw léegi nag dañuy sant yàlla bu baax di sàkku si ñoom ñëpp ñaan. mënuñu dara xamuñu dara ñoo ngi sàkku si ñëpp ñaan rawatina waa Kees waa Gambie waa Casamance waa Mbour ñëpp a ñëw. waaw waaw ñoo si kanam. si karam incha allah. def. waaw kon noo waajalee combat. waaw waaj naan kaag samay coach waaj kaag waa Kees waaj kaag waa Gambie Casamance ñëpp xam waaj naan ko bu baax a baax a baax waaw. mën nañ xam ban écurie nga bokk ci Modou Anta wala. non man R100 mbooloo laa bokk. R100 mbooloo R100 mbooloo R100 laa dëkk. kon c'est la première fois nga ñëw bëri. waaw d'accord waaw noonu. si c'est la première fois. bii mooy sa ñaata mooy sama bii mooy sama douze combats. douze combats benn défaite benn machinil. kan moo oh, benn mbër boo xam ne sama gars la xam nga Alaaji Gaynde waaw maa ngi koy champion la kon yéen ak kan la. waaw ñu tribo la. tribo waaw. kon si kanam merci champion yow lay waaw mais ndam rek liggéey nañu war a liggéey ñu nga xaar yàlla quoi yàlla nañu yàlla may ndam waaw Bambey xajul ci Dirbo incha allah nañ ko duma nañ ko daan bu soobee yàlla waaw yow rek xalaat ñàkk la waaw ah, champion rek la bu may ko ndam rek yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man bàyyam la waaw mi ngi waaw lay wax tey ci bés bi ak kii kan nga indi tey ndigal lañ indi ñu ëmb ko waa école Balla Gaye yëpp ëmb ko ñu entraîné li mu war a entraîné def li mu war a def yëpp ñu indi ko tey pour mu am ndam waaw. waaw dama gis sa keroog sa combat yéen a waaw sama combat ak gis nañ ñëpp gis nañ ni mu demee làmb ji xëy CNG mooy ñoo ci day arbitre bi moo yàq combat bi rek mais arbitre bi arbitre bi moo juum ñëpp xam nañ ne juum na ñu ñëwoon si stade bi yëpp kontaan nañ ndax bëri nañ xeex nañ bëri nañ def nañ lu ñu war a def lépp bëri nañ combat bu neex. noonu la demee. waaw ma ne dama doon dégg ñun yow blessure nga doon bëre waale. waaw mais loolu dara ñun yàgg nañoo bëre waale blessure yàgg nañoo bëre waale blessure amoon naa blessure si tànk même même même si biir combat bi gaañu naa si loxo mais loolu loolu loolu loolu problème ñun yàgg nañoo bëre waale blessure quoi. te supporters yi moo tax may wax. waaw. ñoom xam nga xam nga ñu bëri ñu bëri li wax nii da see am solo ndax ñu bëri dañ ne ma après mi-temps bi da nga ko da ko waroon accéléré da nga ko daan moom sonn na mais man damaa blessé si biir combat bi. bi man dama man dama blessé dañ ma dama gaañu si loxo gaañu bu métti moom moo tax mais bur loolu loolu kon damay accéléré combat bi dinaa accéléré combat bi daan ko. kon ci biir 5 minutes ngay accéléré combat bi daan ko mu jeex. bu bu mu 10 la grand combat lañ doon bëre 10 minutes 10 10 la. bi bi mu sonnee gis naa ni sonn na man maa ma te man maa ko ëpp koofur bu ma ko accéléré woon dama koy daan mën na ko accéléré daan nga foofu mais dama gaañu si loxo. dama blessé ñu bëri day comprendre ñu dañ ko waroon a def nii na nga ko waroon a daan da nga ko waroon daan ñu mais nag noonu la waroon demee ndax làmb moom li si biir yëpp kenn mënu koo wax yow mi nekk si biir rek yaa mën a xam lépp mais ku nekk si biir mënoo xam lépp. waaw actuellement nii amul promoteur bu la set waaw am na am na ñu ñuy wax mais waxaguñ ñu boo xam ne combat bu combat bu baax la wala combat bu ñor la. ñi ma war a bëreel xam nañ seen bopp promoteur yi xam nañ ñi ma war a bëreel manager xam nañ ñi ma war a bëreel gars yi nañ ñëw ñu bëre. combat yi jaadu laay bëre du dootuma bëreeti combat bu jaaduwul nañ ñëw ñu bëre. léegi yow kan nga gis ni ne moom war nga mën a bëreex ñi ma war a bëreel bëri nañ kéwal kéwal bawol la ñu bëre kéwal la ñëw ñu bëre. ah kéwal Bour Sine soxla moo si defet la jógee. ñoom mbéy gi gi sama gaay yooyu. kéwél laa ah, wala tonnerre. kéwél wala tonnerre ku si ñëw baax na. waaw waaw saa kees mi ngi nii saa kees. waaw ñëpp benn lañu. mi ndigalo mi adversaire mi bëri ñëpp suñu nit lañu. mais nag nit ki nga bokk rek nga mën a gunge ci yenn yi dëgg yàlla di ko ñaanal aussi yàlla may ko xam nga di ñaan ñëpp Sénégal yal na jàmm yàgg daal. saa sama kanam rek fan laay taxawee ah. aw ma leen sama ginnaaw. sa diggante Bombardier la gars yi doon wax. bàyyiwuma kenn Bombardier Gris Bordeaux Tapha ku ci amul combat laa ci gën a sawar. mais ñi ci amagul combat. Bombardier day amagul combat. waaw moom Tapha Tine ñoo dama ne ñoom ñoo amagul combat. yaw la ñu tànn yow. pare naa pour grand non non pare naa pour pour le grand mais parewu ma pour di bëreeg ñoo xamante ne dañoo jël ay avance. xaar jëmale suba. waaw dëgg yàlla. si moom moo gën a quoi pour na mën a teel a bëri aussi. waaw point. Atou Diop suma coach sa adjoint moo ko préparé boobu amee lu ay kàddu yu sañuy sànni moom moo ko siy sànni kan la si ki moom ki mooy suma coach sa adjoint moom moo préparé ci Atou Diop waaw waaw kon moom mooy wax tey. dëgg kii nag moom may kët si caatu yoo. dëgg la comprendre te moo ko préparé si lépp. dëgg la yoon noo ko préparé caatu yoo si ni ñu ko war a préparé comme yow ni mu bëggee acteur am ñu préparé ko noonu la ñu ko tey jii daal dañuy xaar yàlla mu may ñu ndam waaye bu dee physique caatu yoo indi na physique bu dee état yokk gën naa yokk maasam ñun dañ xam ki ñuy bëreel ki ñuy bëreel. booy yi bi nekkee xale dafa ñëw di fa dugg di jël ay mbapat di fa daal ay wàlliyaan booy di ko gis ñu xam ne kii ab bërekat la booy xam ne yàgg-yàgg dinañ daje moom ñun dajew ñoo ku mënul bëre de ku mën a bëre la ñuy ku mën a xeex ku mën a bëre léegi nag Thiatou Yoff tey ji lay ware boppam tey ji man dama jàpp bii mooy suñu première lamb grand combat si kaw lañ jëm te kenn mënuñoo téye te kii xale la bis ko laajee atam danga naan danga naan xamul ay atam day sànn. waaw mais sànq dama ko laaj mu ne yéen boo leen xeexee mu duma leen daan. bërekat yëpp loolu la ñuy wax. kanam loolu la ñuy wax bërekat yëpp. koo laaj mu ne la bu bëree ma daan ka bu xeexee ma daan ka waaye bërekat mbër mu ndaw moo ko fiy jëlee mbër bërekat yëpp mbër yu ndaw yële bi jëlee. taay seen de tey caatu yoo koy jëlee ndam rek ngeen ndam yoof rek bëggee. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. septième combat de la soirée diggante Sakal ak vite fait ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Sakal à gauche vite fait à droite ñoom ñaar ñëpp dañu ngemboo a ah, jël na ko Sakal jël na ko ñoom ñaar jàppante nañ. ñoom ñaar jàppante nañ caba xamal naka dànd ko dànd ko jël bi amul benn werante dànd ko jël bi amul benn werante dànd ko démb bi amul werante ndeysaan dànd ko saan supporter yaa ngi nii supporter supporter fit kii nag moom mooy vite moo daan sàkkal benn jël bu amul benn werante kii moom mooy vite moo daan sàkkal jël bu amul benn werante. mais sànq ma combat bi mooy gën a métti. mbëri waxoon naa la ko. sama papa la lépp. barke Sëriñ ba fayam. fan nga jëm léegi. sama papa laa bëgg a jàppale. sama papa laa a ma lamb du sama yëf sama moo tax ma dugg si bilaay walaay taala. waaw eh, vite fait. waa lii jaxaay la rek barke Serigne Touba. vite fait yow foo vite fait. yow samay morom ñaabu ndaw dañoo ñu bëre. ñaabu ndaw ñaabu ndaw dañoo ñu bëre. waaw vite fait foo jëm foo jëm. foo jëm billaahi foo jëm nee na ñaabu ndaw la fa. ñaabu ndaw laa jëm laa bu ñaabu ndaw combat la moom ñaabu ndaw combat bu neex la moom Laurent Ndiongo combat la. moom ñaabu ndaw combat la. li ma mën a joxe sama morom duuru ba bëre. dama ko gëm loolu damay xeex. mu ne ma ay xeex dama ko gëm ne damay xeex te xeexuma xeex bi dëgg si man xeex laa gën a mën mais ñëwuma parce que lamb ji ni mu demee dama faaw ma respecté ko sama papa daa ñëw ndeysaan supporter vite fait yaa ngi nii loolu mook man gëw ma ko. déedéet. combat man na yaaga man na bañ a yaaga. maa ngi ci ba tey. maa ngi ci tey. maa ngi fi ba tey. si kanam. tey nga jël xale bu nekk si yoon. man si yoon laa nekk. 18 ah. combats. bii mooy 8 victoire. ku ko am ban mbër moo ko am 18 victoire. bareel mbër yu ko am de. sànq ba mu ko seetsee. Ah. nee na taxaw ko jug. Ah. boo bëree mu daan la boo xeexee mu dumal. waaw ba si kanam si kanam. yow lay wax si kanam dina leer lim la wax rek buñ ci àggee. day xam na lépp dëgg la maa la ko wax. bëy di maa ngi siyaar di nuyu waa Sénégal yëpp di ko njëkkee ci siidi mbake ba ci suuf ndax defe naa ni kurus boo nee kurus rek bàyyootoo benn per. kon tey Sénégal su ma nuyoo Sidi Mbacke jaarale ko ci rek kon defe naa nuyu naa ñëpp waaye dafa am loo xam ne dama bëggoon Sénégal ñu bàyyi ci xel may wax nag du baara mu tuuma wala xëccoo dama koy wax en tant que frère ak frère. Gris Bordeaux moom laa bëgg bu fekkee dégg na li ma wax te dépassé wu ko te xalaatu man dina ko dépassé mooy tey euh, moom mooy président leader en activité du Sénégal Gris Bordeaux. Euh, boo xoolee tey public bi ñenn ci ñoom ñooy wàcc sur le terrain di jàmmarloo su mars amee tey Sénégal ku ponkal ñu ne mbër nga nervi yi nee nañu mbër yi la lu tax ma ne nee nañu mbër yi la cité woon nañ ci Gris Bordeaux mu dem Sen TV dafa déclaration ne du moom euh, cité nañ ci Zarko fan yële ci benn tiktokeur cité Papa ñu ko ci lam-laame te ñooñu ñuy lim du ñu mbër yi ndaw tey boo xoolee supporters yi mbër bu bari supporter am xaalis mbër bu néew supporter néew xaalis parce que lamb ji la ne supporter ngay doxee kon mbër mën ta fay bi biñ tëjee lamb ji nag à cause de Covid bi dañoo woote Sekaca Gris Bordeaux rassemblé leen ma bëgg Gris Bordeaux mu def benn rassemblement wax ak mbër yi ndax mooy président lu tax ma ne mu wax ak mbër yi mooy dañ ne nervi yi ay mbër lañu waxuma nag ay mbër lañu. Sénégal ku ponkal ñu ne mbër nga waaye Gris Bordeaux na def déclaration woo mbër yi xamal leen ni képp ku ci nekkoon mbaa nga ciy waaj a dem bàyyil ndax suñuy supporters ngeen dajal ci mbedd mi te ku fàttale la fal follee ko mun na laa yomb te buur bu demee bay door ay dagam mun naa bañ a bari le te ñu ngi si cité ay turu mbër waxuma nag ñoom la mais nag Gris woote def sensibilisation ndax bi ñu tëjee arène nationale à cause de Covid dañoo woote woon ñoom mbëri ñu jéem a setal seen bopp xeex ci nag seen tànk tubay ndax ponkal muñ jiiñ mbër ponkal a tax ñu la ko jiiñ te bari na ñu bëreetul ñu leen ñu jiiñ loolu bari na ñuy bëre ñu ngi ciy tudd ndax dégg nañ ci bu yàggul turu Zarko leeral na mais tey seen président bu jógee woo leen ñu dox ci ay tànk yoo xam ne képp ku nekk mbër ñu wax ak yow njort naa ni doot ñu leen tudd ci nervi yi wala buñ gisatee ponkal bu buñ dee wax nervi dañuy wax turu nervi yem ci mais pas mbër yi Gris Bordeaux man jàpp naa ne am na ci part de responsabilité waxuma nag na ko def par force mais damaa jàpp ne bu defee loolu président biñ koy jox defe naa tey Sénégal bu ñu amee luñ naqar dañ naan Macky ndax mooy suñu président kon Gris Bordeaux bu nekkee président leader an activité man jàpp naa ni war naa wax ak leader yi ku ci nekk nervi yi bàyyi ko xam ni mënoo fay say supporters père bu ñu xoolee public bii ñenn ci ñoom ñooy wàcc sur le terrain suñuy frère suñuy mag suñuy rak suñuy sœur kon man na dama naan Gris Bordeaux maa ngi koy ñaan man sama kàddu yi néew na defar rassemblement wax ak leader en activité yi mu jiite ku ko déggal baax na ku ko déggalul baax na na def wareefam loolu daal laa doon ñaan yàlla na ko yàlla dogal. non dina ko def champion. dina ko def champion merci. mu dem ndeysaan huitième combat de la soirée diggante Pape Mbaye ak Turbo du règlement bi wax rek la leen wax arbitre bi soufflé na combat bi diggante Pape mbay kees la jugee écurie r san ndeysaan turbo à gauche ngembo ngemb bu weex bi ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Pambay ak turbo diggante ak turbo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Pambay ak turbo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Turbo bu Tiwaawan ak Pape bu r kii mi ngi jóge Tiwaawan kii jóge Kees ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Turbo ak Pape ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Pape ak Turbo ñoom ñaar ndeysaan diggante Pape ak Tribo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Pape ak Tribo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Tribo à gauche ngembo ngembu weex bi ndeysaan Pape bi arrêté na combat bi mu ah arbitre bi sifflé waat na combat bi diggante Turbo ak Pambay ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Turbo Pambay ñoom ñaar ñu ngi arbitre bàyyi la ñu bëree du combat bu ñuy saax saaxe ñoom ñaar jàppante nañ diggante Turbo jóge écurie Tivaouane Bambey jóge écurie Kees R100 ndeysaan combat bu neex a ngi nii Bambey laa ilaaha illallaah diggante Pape ak Turbo ndeysaan Pape Mbaye cokkaas na Pape Mbaye cokkaas na diggante Turbo ak Pape Mbaye ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Turbo ak Pape Mbaye ñoom ñaar diggante Pape Mbaye ak Turbo ndeysaan dagg nañ lewtoo bi Pape Mbaye dagg na lewtoo bi jiital pied gauche ci jiital pied droit ndeysaan ñaari champion ndeysaan ku ci daan xam nga fu nga jëm ku ci daanu nag ndeysaan kenn du la may loxo ndeysaan cokkaas na Pape Mbaye cokkaas na Bambey cokkaas na Turbo Pambay ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Turbo Pambay ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ndeysaan Pambay cokkaas na jël na ko Pambay jël na ko wër na ko ndomb ah, wër na ko ndomb quatre appuis quatre appuis Pambay daan na Turbo jël ba amul benn werante quatre appuis gat api Bambey daan na ko jël ba amul benn werante waaw daan na jël ba amul benn werante ndeysaan doole doxul jàmm waaw doole doxul jàmm daan na ko jël ba amul benn werante Pape Mbaye bu kees kii moom mooy Jules Balde Mago Ama Ama mu ngi si jàmm waaw mi ngi si jàmm bu a baax waaw bi loolu la waxaat waaw kon gën naa ko dégg nag ah gën nga ko dégg waaw lig lig gën naa ko dégg quoi waan Ibrahima Diop ko déggante quoi mais préparé waat pour tëgg ak combat waaw non non combat bi dinañ am moom soobee yàlla yaakaar nga dina am si 2023 wala 2024 incha allah balaa balaa semaine bi tëj dina am soobee yàlla ah. soobee ah, yàlla dégg ngeen nag lu mu wax nee na moom yaakaar na ni Ama am di ama Ama moom dina bërewaat ci 2023 bi contre Gris Bordeaux. incha allah bu soobee yàlla <laughs> derby Dakar Thiès day neex. am na solo loolu derby Thiès Dakar. Bambey dafay bëri ay adversaire. macha allah tey wane na boppam. il a terrassé Tirbo avec la manière. mais na des à Dakar. prochain combat am après koor gi. il faudra mu waat fii dakaar te loolu ñun liñ ci mën ñun presse bi danañ ci wax mais. kii nekkatul produit boo xam ne dafa war a jëm Thiès. du mbarum raison Seydina mbarum réew la. Seydina Omar balaa ngay daaneel. Pape Mbaye classement ban nga koy dugal ci Dakar tey. waaw mais fii ci Dakar bu dul dara. Pape Mbaye Tapha Mbeur bu dara Pape Mbaye Niang bu ndaw combat la. wér na bu dul dara Pape Mbaye euh, je ne sais pas. a il ñeme nga booy Town est-ce ñeme nga booy Dakar booy Dakar yi booy Dakar dama daje ñoom si àll ba sonn daan leen dama ni bëgguma sax kaaku reew ak ndigal ma grand combat bi la Tyson 2 ak Caatu Yoff ñoom laa soxla ku si daan parce que def naa loo xam ni kees tey promoteur yi bari bëggoon nan maa tëgg indi ma fii boo xoolee kees gaa waa yëpp topp sama ginnaaw le maire Ousmane Diagne jàpp si baax a baax. kenn du moom kenn du Ousmane Diagne. Eh, eh, waaw waaw. mooy lu ma la wax rek. waaw parce waaw mais ki nga daan ci waawoon la jógee. dëgg si dama ne est ma joxoon avance léegi. muy avant grand combat beeg grand combat ma yóbbaale. pare nga pour bu nu waree xale naa bul bëre non man amuma lu may prouvé kees mbër bu ma sa ñëw kees te daan naa la mbër bëre nañ suñu biir ba sonn mbër mu ma sa ñëw kees te daan naa la ku fa ñëw bëgg a yëngal maay borom lamu kees si kees nag am na si yaakaar bu baax a baax di nuyu mbaru kees yëpp 100 pour cent bi di leen nuyu baax boo xoolee booy jaxaw moo ngi fi te woon nan te mënoon na te bëri woon nan mënoon nanoo wax bëri naa Pambay du ma ñëw. xam la ak ak ñeneen ak ñoo xam ne bëri na dana ñëw si ak ak saafi ak 100 pour cent kees bépp daal maa ngi nuyu di la ñaanal jàmm. di la ñaanal jàmm mbëru kees yëpp ñëpp réussir Modou Anta. maa ngi koy nuyu baax sunu garaan bu ñuy def. walaay daje média bi ñoo tax ñu xam Bira Sène média wu Sénégal moo tax ku gis Bira Sène ci mbedd a xam ne kii te Bour Gueweul dafa liggéey ci média loo xam ne nii lu kenn mënta fàtte la nañu bàyyi di toroxal nit ñi rawatina ni ku baax mais Bour Gueweul li wax lu am la li am ci làmb lay wax li am ci làmb rek lay wax li waa làmb di dund lay wax am na ñu wax lu gën a pire loolu dañ leen a ñeme wut a bu ñu leen laalee ñu xam ne am nañ ay loxo yu gudd yuñ am ah dañoo yaakaar ne Bour Guéweul borom loxo bu gàtt la moo tax ñu toroxal ko nii ci stade bi li Bour Guéweul wax am na ñu ko gën a wax lu gën a pire man tey su ma àggee dinaa wax lu gën a piir loolu. waaw loolu fi am. mais est-ce que ñoom jàpp ñu ne Bour wax pootum biir néeg la woon mu ñëw fii CNG wax tax ni ko ñoom. xoolal Bour Guéweul bu fekkoon ne sax daa saaga Bira Sène. wala mu wax leen lu ñaaw. Bira Sène am na ñeneen ñoo xam ne ñoo mën a fajal doomu aadama waxuma la ak moom mi fajal boppam arène nationale bi tabaxluñ ko Bira Sène tabaxluñ ko CNG pour mbër yee tax ak nitu làmb yi bu fekkee ne buur dafa wàcc yoon waxaluñ ko war a wax am na droit convoqué ko fii dimanche ne ko ñëwal wuy suma wala beneen jour wala lundi wala mardi mais amuñ droit mu ñëw ba ci biir làmb ji ñu koy bloqué naan ko da ngay génne làmb ji loolu du rafet du lu te xaarañ ci loolu ci Bira te feeg lii taxawul jégalu ko ñun nitu làmb yi ak ñun ñuy wax ci làmb duñ ko may jàmm ci loolu moo danta mais mosu fee am de ban sun ban jàngal lañ ci war a am ñun journaliste yi moo danta làmb gis nañ fi lu ne gis nañ fi mbër lu nekk ñu nekk ci média bi kaasal ko gis nañ fi ci wàllu Bira Sène barki démb lan la fi arbitre def comme arène Sathiès lan la fi arbitre def da ngaa dégg ñu ne waa CNG nañ woo nañ arbitre bi wax ko dara am na sanction bu tegu ci moom waa nu Bira Sène mën a def ba uuf ki bokk ak moom kon ñun journalistes yi bokkuñ ci moom ñun ñuy wax ci làmb bokkuñ ci Bira Sène buur géwél du nit ku ndaw ci wàllu làmb nañ ko wax te dee bëri na combat yi gën a neex bokk na ci ñu ko reportage yi gën a neex buur géwél moo ko def. ci micro Sénégal bi. ah kon tey jii nañ ko respecté jox ko cër nii ñu ko def dañ koo toroxal te nii ñu toroxalee buur géwél toroxal nañ ko ñëpp nit doo làmb yëpp yëpp yëpp yëpp te Bira nag na génn wax ak ñoom waaw waaw waaw loolu daal laam lu ma ciy wax ñu ngi woon nitu làmb yëpp waaw grand daf leen ndànk lii ñuy wax nii seen intérêt la yéen ndax boo léegee mën nañ ko def ku jël sa micro dem boo léegee bu ñu la ko defalee ci ñëpp lay métti ku laal benn nitu làmb laal na ñëpp na ñëpp taxaw fii ñu wax ko làmb ji keneen koo ko laaj mu jox la ko nga doo koy publier li am solo ba am solo mooy nañ waxtaan ci fulla ak fayda Bira Sène bu fekkee ne moo def lii def na lu ñaaw ci wàllu làmb xaaruñ ko ci lii ñun ñun xaaruñ ko ci lii bu fekkee intellectuel la ñi ñu jiite ci réew mi li ñuy dégg moom déggul xaaj bi ñi fi nekkoon CNG bi li ñu dégg moom xaaj bi kon tey ji bu fekkee buur géwél dafa communiqué communiqué boo xam ne wu ko na ko woo ci njabootam la bokk loolu la ñuy xaar moom. jërëjëf Babacar xaaral combat bi. arbitre mu ngi leen di laaj diggante ndigal ak kaaw nee na ndax pare ngeen arbitre bi siffle neuvième combat de la soirée diggante ndigal ak kaaw ndeysaan ndigal à gauche kaaw à droit ndigal mi ngi bokk écrit saa kees la bokk tey saa kees a indi écrit saa kees a ko indi saa kees moo indi ndigal ndeysaan écrit saa kees la nekk Sa moo daan Reug Reug jël ba amul benn werante ndeysaan laaj naa ko sànq fu mu jëm nee na moom bombardier nañ ko jox bombardier Tapha Tine wala kuñ ko jox rek baax na loolu la Sa Thiès wax ndeysaan arbitre bi sifflé na combat bi diggante kaaw ak ndigal diggante kaaw ak ndigal diggante kaaw ak ndigal diggante kaaw ak ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante kaaw ak ndigal ndeysaan diggante kaaw ak ndigal waaw waaw tey sama waaj. looloo yoon tey grand champion. ndeysaan ñoo lay yoon looloo yoon. ngeen teg kaawaat ndigal. waaw ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey combat la boo xamante ni la ma doon wax rek gaw ma ni dina gaaw ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk combat bu yàgg moo la arrangé muy ndigal muy kaaw Gourdin waaye boo xoole ñaari xale yi xam ne entraîné nañ ci combat bi te combat bi ñoom ñaar ñëpp daf leen a bett mais ku ci nekk aussi dem nga ñaanal bokk nañ sax sëriñ ndax ñaari sifflet lay ñoom ñaar a ko bokk. loola lay wan ni làmba ngi nii tey. est-ce que est-ce que jox nañ ko ndigal pour mu jël ndigal. Kaaw Gourdin. est-ce que jël na ndigal. est-ce que jot na ndigal bu jël ndigal. waaw war jot na ndigal ndax bu jot loon ndigal du jël ndigal waaye est-ce que ndigal da koy digal wala kaaw gu dee da koy wan ni maa la ëpp ndigal yooyu yëpp bu arbitre bi sifflé ndigal nee na moom nu mu ko amee baax na nee na bu sañoon bu arbitre ne piip sax kaaw gu dee tiit rëpp kaat abi bu dee. bu jël ki nga xamante ne nii mooy Saka Baldé ne ko te mu jëlaat kaaw gu dee te yaakaar naa ni. kon ko ndigal yaakaar naa ne xam na valeur ndam xam na valeur bis. Babacar loolu mooy yoon parce que ndigal bi muy ñëw ci làmb mbër la woon mais dafa bëreeg ay ndaanaa xam ku ne bëree na ak soq rek doy na palmarès ak soq xoolal fi mu toll ci làmb ak yow fi nga toll ci làmb léegi dafa xam ni làmb fi ñu ko tegoon sérieux beeg concentration bi yëpp ci digg géew bi la mais ci biti da kaf léegi def na boppam comédien ba bokk ci làmb day kaf. day mbalak waaye bu duggee ci digg géew da jox cër bi mu moom da koy jëlal boppam kaaw gurdee tamit aussi noonu day dem ci lutte traditionnelle yi di wane boppam mais loo mën a xew li ma la waxoon sànq juguma ci combat bi goo mën a combat bu gaaw la combat bu ñuy calculer ñoom ñaar combat bi le minimum dina def cinq minutes wala romb ko ñoom ñaar ñuy doog a bëre parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo bëgg bëre jaajëf champion ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante kaaw ak ndigal day sànn ñoom ñaar ñu ngi lewtoo tey sama technicien bi tey sama reporter bi moom nee na du combat boo xam ne nii day gaaw a jeex si première minute wala deux minutes wala si cinq minutes yi il faut bi yàgg parce que ñoom ñaar ñëpp si defet nañu jógee arbitre bi siflewaat na bu ñeentee nag dañuy tas combat bi jox ndigal victoire ñoom ñaar ñu ngi waat lewtoo day sànn Kaaw Gourdin ak ndigal bi ndigal jaay stratégie Kaaw Gourdin ba nax ko mooy génnee ko par décision arbitrale par poin parce que Kaaw dafa bëgg a jeexal combat bi mais ndigal day arrière ba ci saako yi mu sol ko jàppante ne ñoom ñaar en tout daal loolu laay ragal takk na ko takk na ko weñ na ko gis nga ndeysaan ah génne naka waat saako yi laa ilaaha illallaah diggante ndigal ak kaaw. lamb ji day jeex. day jeex day jeex parce que ndigal day téye combat bi bu njegee saako yi mu génnee kaaw gu ne lamb ja jeex. jeex na kat day jël kat la ma la waxoon du deñ kat. Ah, arbitre bi sifflé waat na combat bi Kaaw am na quatre avertissement ndeysaan benn avertissement ko dese su doon maay Kaaw Gourdin fi dama ko fay teg jeexal li xale yi naan teg jeexal mooy agressé ak ndigal xeex ak moom am lu ma am jël moo ma gënal fuuf mu may daan par décision arbitrale yóbbu ma ba ci saako yi di ma génne ci saako yi waaw ndeysaan diggante Kaaw ak ndigal ñoom ñaar jàppante nañ ndigal bu ñëwee ba ci saako da koy jàpp bu jàppee remplacé ko génne ko saako yi te ñoom ñaar fi mu toll nii avertissement yi arrangé wul Kaaw Gourdin Kaaw daal xaw ma lu mu doon xoole ba jël quatre avertissement mais fi mu toll nii dugg na ci peesu ndigal. ah ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ dafa ndorox Kaaw génne na ko waat saako yi waaw waaw. quatre moo nar a doon. wala 4-4. ah en tout cas. gis de wala. léegi nag ñoom ñaar maa ko wax bëre leen xeex bëre xale combat jànq warul demee nii da war di jaabante ardo mais pas di jaabante di génn saako yi di ñëw xola waaw sànn dafa day sànn kaaw dóor na ko mu génn saako yi kaaw dóor na ko mu génn saako yi day moom nee na dañ ko mbëkk nee na dañ ko mbëkk loolu c'est pas normal diggante kaaw ak ndigal day sànn kon ba 4-4 ndigal nee na moom dañ ko mbëkk moo tax mu génn saaku yi dafa mel ni ku ñemewul Kaaw Gourdin booy bëre xale bu mel ni Kaaw Gourdin waroo concentré wu ci arbitre bi Kaaw Gourdin fi mu toll nii gën na gën na xam ne combat bi combat am la te mënoo préparé wu ba ñëw fii arbitre bi ñun ñëpp ngi gis arbitre bi même bu la mbëkkee bu la sa adversaire mbëkkee arbitre bi gisu ko bëreel bëreel xoolal lii jeex na jeex na digal ku si nekk am na quatre avertissement day sànn. la nañu xeex dóor mu daanu am mais kaaw moom dirigé na fi mu toll nii ndigal jël na tibb na ko takk na ko daan na wala dee daanuwul de dara xewul lii la da ngeen war a xeex war a bëre lii la amateur yi di xaar ci yéen ñaar waaw ñu ngi xeex ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi xeex ñoom ñaar kaaw mu ngi koy biic ndigal dafa bañ ndigal dafa bañ ca caxabal mu ngi feeñ waaye ëñ ëñ caxabal wala da koy delloo en tout cas daal génn saako jege na. ku nekk am na quatre avertissement. si parce que ku génnee sa morom da am ndam ñoom ñaar kenn yabul saako yi fi mu toll nii kenn du laal saako yi ndax ku laal saako yi ñàkk sa combat ndigal la ngay dem ndigal la ngay dem saako yi arrangé wu ko mbotkat la moom ndigal. ña ngay bëre ñoom ñaar stratégie bu garaaw diggante ndigal ak kaaw gurne kaaw waree dalifoor ndigal. waree géejawaay ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ndaysaan ma koy jël ah waaw non dañuy dañuy bëre ñoom ñaar dinañ bëre ñoom ñaar jege nañ saakuy saakuy nag fekkiwul kenn ndigal a ngi dóor kaawa ngay fayu saaku ya saaku ragal naa ragal naa combat bi daal arbitre koy jeexal ndax man gëmoon naa ni combat bu yàgg la loolu moom lu ma gëmoon la waaye actuellement nii ragal naa ni boo xamee sit buy am tamit dina ma bett torop mais kaw Gourdin même bu bëggee génnee ni nga tëri ndax sàmm boppam ndax nii la daane woon see ko Baldé da ko doon pousse pour mu génn mu door ko tànk remplace ko biñ ko mu daal di waaw waaw parce que moom it bu leen fàttali ko ndigal mbotkat la bari na ay combat yu bëree bëri yoo xamante ne day mbot mais kaw daa xam li muy def maanaam du yóbbante dara lu muy def day wóor te làmb loolu la toll. làmb dafa toll foo xamante ni maam jën la rek te jën moom bu nëbee ci bopp bi lay commencé. làmb arbitre bi àtt na combat bi. arbitre bi àtt na bi. bu làmb ji jeexee nii daa bëgg ñu ñëw ci digg géew bi bëre. bëggul mu jeexee par décision arbitrale. arbitre bi àtt na combat bi. dafa ndurox ndigal dafa sonn. arbitre na combat sonn. ndigal naa moom nekk am na carte avertissement. min na combat bu yàgg. na combat bu yàgg. waaw min na combat bu yàgg. waaye fi mu toll nii amateur yaa ngi xaar. waaw ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. diggante Kaw Bourdin ak ndigal. Kaaw a ndigal. ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ah arbitre bi at na combat bi dafa ndox match nii la de. waaw mooy lima ma rek. lu ñàkk xorom moo nar a ñaar ñu ngi léewtoo diggante Thiatou Yoff Tyson 2 Tyson 2 moo ngemboo ngemb bu bleu bi Thiatou Yoff ngemboo ngemb bu weex bi jiital pied droit ki jiital pied gauche ndeysaan que le maire gagne diggante Thiatou Yoff Tyson 2 diggante Thiatou Yoff nii dama ciy kii Tyson 2 li muy def nii loolu la war a def dafa war a téye boppam tey amul lenn lu muy perte ci làmba ji daa maye sens dafa war a ñëw téye boppam ba caatu yoof moom moo war a ñëw confirmer bu caatu yof juumee mu daan ko li muy def nii loolooy làmbam mais caatu yof tamit tey dafa war a confirmer quoi tax tey bés bi koy boole ci làmb ci ci moom moom la quoi tey arbitre bi sifflé waat na diggante caatu yof ak Tyson 2 ndeysaan diggante caatu yëf lépp diggante caatu yëf Tyson 2 mooy sànni caatu yëf ndox lii dem demul diggante caatu yëf Tyson 2 ñaar ñu ngi lewtoo cër bi Tyson 2 jox caatu yëf cër dafa jox cër Tyson 2 fi mu toll nii mais Tyson 2 fii rek la ko war a jàpp ndax Tyson bu daanee caatu yoof du bett kenn ndax Tyson 2 daan na ku ne ci làmb waaw def na lu ne ci làmb daan caatu yoof tamit mën na ko gën a delloosi ci làmb mais importance bi ci caatu yoof la ëpp ko moom bu daanee waaw bu daanee kenn mënatu ko bañ ci làmb san ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante caatu yoof Tyson 2 ndam lu Pikine la jëm wala yoof si kanam dina leer te léegi mu leer ndeysaan poulain Eumeu seen la kee poulain Malick Nialo tey bii combat diggante Tyson 2 Thiatou Yoff diggante Tyson 2 Thiatou Yoff mais yow at bi at na bi day san ah jox na Tyson 2 avertissement day san jox Thiatou Yoff avertissement at bi bi sifle waat na bi diggante Caatu Yoff Tyson 2 ndeysaan ndeysaan mais est-ce que combat bi mën na jeexee ci 5 minutes wala 10 minutes. non ci Tyson 2 lay dépendre ci Tyson 2 lay dépendre pour combat bi jeexe ci 5 minutes wala 10 minutes. Tyson 2 moo mën a attaqué booy bi riposte mais booy fi mu toll nii jëlagul benn initiative pour pour attaqué Tyson 2 ndax cër bi dafa bëri quoi. xëy na nag bu ñu mitanwee dem ba ñëwaat mën naa am yi conseillé ko loo xam ne nii pour mu ñëw la mais. caatu yoof li muy bëree nii moom waru ko woon a bëree dafa waroon a ñëw dafa waroon a ñëw parce que moom lañ may chance ba ma war a ñëw prouver mais Tyson 2 tamit li muy bëree nii loolu la war a bëree parce que ci expérience la war a gën a mën a daanee caatu yoof quoi ndax caatu yoof mbër mu sotti la xeex ba bëri na bëre ba bëri na te néewul doole kon Tyson 2 moom mi ngi ci bitam mais caatu yoof moom moo defagul li mu war a def bu leen fàtte ni nag lamb la ko waa lamb moom lu nekk mën na am Tyson 2 est que waxuñu ko téyel sa bopp parce que booy bi moo soxla. waaw man sànq ba may wax loolu laa wax ak laa wax moom man moom bi ma koy conseillé sànq dama ne ko téyel sa bopp bu juumee nga daan ko parce que amoo dara loo prouvé tey ci làmb ji man loolu laa ko wax sànq. champion ñoom ñaar ñu ngi léwtoo diggante Thiatou Yoff Tyson 2 diggante Thiatou Yoff Tyson 2 diggante Thiatou Yoff Tyson 2 day sànni. ñoom ñaar ñu ngi ne teg eh jàppante nañ ñoom ñaar laa ilaaha illallah eh Tyson 2 daan na ko Tyson 2 daan na caatu yëf jël ba amul benn werante kat api bu leer nañ waa Tyson 2 daan na ko kon li nga waxoon dëgg la. loolu laa ko waxoon lii laa ko bi ma ñëwee ci cumi kaayam lii laa ko conseillé ne war naa ko teel sa bopp bu ñëwee après bu xeexee nga kii ko mais làmb la ñu ngi félicité waaw. waaw kon Tyson 2 daan na Caatu Yoff benn werante ndeysaan ku fi teew leen mooy Diba bu Sénégal c'est le maire benn werante jël amul benn werante ndeysaan dama ñëw ci ko téye lii mooy làmb nee lii moom mooy làmb Tyson 2 daan na caatu yof jël ba amul benn werante muy drapeau ministre d'état docteur Cheikh Kanté mu delloo ko njukkal président Macky Sall nga gañe ko Cheikh Kanté mbër mu mësee gañe drapeau am doon ko roi des arènes yàlla na nga doon roi des arènes ñu ngi la koy jox ci kanam le président Thierno mbeng ci kanam ajartu Awa Jimbi chef de cabinet euh, président conseil départemental ak xalifa ñoom ak délégation bi ajartu Fat Faye présidente femme yér ak Kéba Cheikh danañ la jox drapeau bi bu yàlla dogalee nga toog ba noppalu nga jël drapo bi nag gémboo fanweeri seet du kat seet si ko. jërëjëf. am naa kontaan bu baax nag. drapeau bi dama am fierté pour pour jël ko. jërëjëf parce kebaa kant sama xarit la. dëgg naa ko yóbbu naa ko fu ne. dëgg la mais damay kontaan nag pour jëlaat drapeau bi. jërëjëf waaw kontaan naa bu baax. joxal sa gars yi. tuuti rek. non ah. tuuti non waxoon naa la ko. waaw waaw waxoon ma waxoon naa la ko damay tey bi rek moom. incha allah mhm. loolu la rek. yàlla may na woon ndam yàlla na ma jig nag bu baax a baax. mais dama gis combat nga téye sa bopp. no gars yi ñoo ne ma téyeel sa bopp boo téye sa bopp kenn mënu la man yi ma daanu yëpp damay jëli ñu daan ma. kon tey loolu la indi. loolu laa indi.